L'eau, binak nag euh, biñ ko xayma eau de javel bu parce que euh, ak savon antiseptique hmm, euh, solution hydroalcoolisée bi nga xamni ni indi nañ ci parce que euh, 35 cartons la javel bi 24 cartons donc solution hydroalcoolisée 175 flacons masque 300 masques amna aussi omo en poudre bobu aussi amna 24 sachets euh, gants d'examen am ci 50 paquets de sang donc lolou tam muy lo xam lu am solo la kon dal japp nañ ni ñom lii ñu fi indi ni ah mën nañu jappalé bu baax a baax suñ ko bolé li ñu ministère jox ak yenen partenaires yi. am nañu yaakaar ni dinañu am doole danañu nekk à l'aise pour vraiment faire une riposte par rapport à la la coronavirus La situation bi Nous ñun dañu lëkkaloog ministère de la santé ndaxte euh, dafa am équipe de l'Institut Pasteur, institut Pasteur ministère de la santé à travers la direction de la prévention point focus surveillance plus MCD yépp dañu àndandoo lëkkaloo pour en tout cas organiser riposte bi au niveau local donc ni mu commencé à identifier fi nga qui ont été. local bo boo amoon cas boo xam ni cas suspect la danga ko fa mën a isoler ba def prélèvement bi leneen li aussi am na équipe boo xam ni au niveau du district ñoom itam ñoom ñooy dem sur le terrain di dem bu dee am na cas contact ñuy dem def suivi bi pendant 14 jours su fekkee am na tam koo xam ni dafa jóge dëkk ba ah que ce soit un cas suspect ou na jóge dëkk ba rek bu jógee dëkk ba bu ñu ko signaler équipe boobu dañuy dem sur le terrain bu ñu demee xool. ba xam ndax kii ñëw ah est-ce que am na mandarga yi ñu wax wala amul mandarga ñuy seet ko bu fekkee am na mandarga ñu war ko prélever aussi ñu prélever ko parce que ñëpp xam nañ ni dañu tëj frontière yi mais du tere xëy na dina am ay benn benn yoo xam ni dañuy jaar ci suuf si di ñëw donc parce que les per les, les frontières sont un peu perméable quelque part donc loolu moo tax mu am ay benn benn yu ñëw mais benn benn yooyu aussi bu ñu ñëwee dañ leen di suivre parce que léegi. Euh, population bi sax ñoom ci seen bopp tam conscient nañ ci feebar bi ba nga xam ne bu ñu gisee ku jóge bitim réew sax parfois ñoom ah dinañ ci def ay jéego daal pour mën a fexe ba ñu set kooku noonu. actuellement on a une vingtaine de cas yoo xam ne rek ay cas yu ñuy suivre la noonu bon ay cas peut-être ay cas contact mais qui ne sont pas malades donc ñun liñ ci am boobu ba léegi ñi ñu seet yëpp kenn amu ci feebar bi. Modu Modu, yi ñu déclarer ñu ñëw yëpp aussi bi ñu defee seen prélèvement kenn amu ci feebar au niveau du district sanitaire de Mbacké. ndimbal la buñ doon indi ci district sanitaire bi dañu xool que ne ñoom dañ ko soxla parce que boo gisee jeunes yi fi taxaw yëpp muy que euh, les relais ñu naan ko père éducateur que mu nekk étudiant que mu nekk élève que mu nekk association. ñoom ñoo dajaloo woon ci xeex bi pour indi seen participation ci Covid riposte 2019 bi. bi ñu ko indee ñu defoon ay cellules nit ñi nekk di liggéey sur le terrain mais bu ñu liggéeyee ba pare liggéey boobu dañ koy yëgal waa district sanitaire bi sur ce bu ñu leen koy yëgal ñoom dañu yëgal ko ne ñoom dañu am problème mu matériel gants masque affaire yu ñu war a liggéeyee parce que ils sont exposés donc sur ça nag la ñu dajaloo waat ñun ci suñu biir ci suñuy xalaat ak suñuy nit ñoo xam ne ñu ngi leen doon contacter si lañ contacter ba am benn loobu waroon a ñëw au niveau de Mbacké donc si lañ ko moo taxoon ñu ñëw fii daje pour indi ko au nom du ñun ñi ñëpp ànd si liggéey bi au nom de la jeunesse de Mbacké. nom bi un certain ku ñu daan Mouhamed euh, Badiane na ñu ko jox donc Mbacké la dëkk fi la jàngee et tout la mais bi ñu ko waxee loolu mu sensible si jox ñu ko aussi ñu si lancé waat appel bépp doomu Mbacké boo xamante ni dèjà yàlla may na la wërsëg nga dikk dimbali waa Mbacké ci xeex bi nga xamante ni xamuñu kañ ak kañ la ñuy tàggoog moom donc te loolu dafa nekk loo xamante ni askan bi soxla nañ ko. surtout dañ ci lancé après ci côté denrée alimentaire bi ñu fexé bu askan bi mën ci mëna a jot loo bi mom nekk na lo xamanteni gant la gel masque donc yépp yo xamanteni ñom dañ koy soxla donc ñu ñu andil leen ko pour djébal ko médecin chef bi. conseil communal moko moko ah, moko moko ko moo démarché mais conseil bi du mom rek daf ko bokk ak étudiant yi ñu naan SETEM bokk ko collectif fi ñu euh, euh Saint-Louis Ziguinchor dëpp étudiant bu dëkk Mbacké. nekk nekk ay collectif ànd ko ak conseil départemental de la jeunesse képp kuy jeune te dëkk si Mbàkke rek ñun ñoo ko àndandoo mu nekk benn liggéey boo xamante ni dañu boole suñuy force parce que ku nekk yaa ngi doon liggéey mais bu ñu paree dañu dajale suñu doole et tout cela puisque ñu ko def suñu propre moyen mais ñu tàppee ci certaines personnes donc si la indilee lii ni bi ñu ko indilee nag ñoom ñoo am idée que nañ ko yóbbu ci district ñu ko pour ko